سيدنا ومولانا محمد mbokk yi ñu bàyyi xel ci seen chaîne bii di MK TV ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu gën a sell dañu ko baaxee xam ci fan yii nga xam ne wees nañ ko baaxoon nañ di amal jataay yoo xam ne nii kuréel liggéeyal ko tedd ki moo koy amal di ci ànd ak ak Muxaddamatul Xidma ñu koy dawal ci suñu chaîne bii di Amika TV bi bokk na ci jataay yi nga xamee ne jot nañ ko fee dawal mooy ci njëkk dundu wala gëneek àdduna yeneen gëneek àdduna yeneen bi alayhi salaatu ci biir mbindum Sëriñ Tuubaa ñu amoon ko ak suñu mbokk Ibrahima Kebe ginnaaw bi la beneen jotaay bu tudd xar baax yi yeneen bi ci biir mbindum Sëriñ Tuuba tey nag mooy suñu ñetteel jotaay bi nga xam ne moo war a tëj wala mooy ñetteel jotaay yi nga xam ne baaxoon nañ tàmm nañ di ko enregistré fii ci suñu chaîne MK TV mu war a doon yan bind lañ mën a jële ci biir dundu yonent bi alayhi salaam doonte sax ku ne xam ne ne yonent bi alayhi salaam gépp la ñu war a jël wa ma aatakum rasul faxuduuhu loolu suñu borom wax waaye nag ñun la lañ ci mën a jukkee woon ko jox nit ñi mu nekk suñu yóbbal surtout ci jamono jii nga xam ne moom nekk weer gàmm di weer woo xam ne ni weeru suñ tuwaa xonxon la daan ci def yu bëree bëree bëri ci diggante bi yonent bi alayhi salaam ngir na bëgg suñ Tuubaa boobu tax na kuréel gi xedd gi jub di amal jataay yii nii ni ñu ko baaxee xam jataay yàgg na di ko amal ci lu weeru weeru gàmm weeru màggal waaye nag xam ngi xam ne noonu la suñ Tuubaa fonkoon gàmm moo tax ñetti at yii ñu weesu ñu jub nag di ko dundal di ko màggal leen suñu jë ñetteelu jataay bi ñu war ci ànd ak suñu mbokk di sëñ Mouhamadul Bachir Mbacke istiqaama di ndaw xam ci sàkku xam-xam ak nangoo gëstu ñu ngi koy datal ñu ngi koy dalal bu baax sëñ bi te la dalal ci jotaay nga xamee ne li ñu ci tax a mooy tasaare ñàngalum sëñ bi ñàngalum sëñ bi nag yaatu na koo mm-hmm. ngir te ji ci it lépp ba mu lay dugg ci biir am njàngale mm-hmm. moo taxoon tey ñu fas yéene dalal la ma ñu bàyyi la nga nuyoo su ko defee mu mën a tàmbali jotaay bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi arrahmani irrahim acuudu billahi min mayli li gayri rida wa min suduudiya amma sunna aw furida bismi lilahi alladi alquranu qad nadala minhu ibtidaai wa arju cindahu nuzula alhamdu lilxaqi almubin man kawnuhu liya yabin ala alkitaabi almustabin maa jamici nicami ahmadu rabbi alcazim xamdan kathiran laa yarim musalliyan ala karim qaada alwara lilmuncimi ashkuru dha alarshi almajid shukran yulaaqihi mazid musalliman ala waxid bikalkali wa kalimi faman kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal camalan saalixa wala yushrik bicibaadati rabbihi axada allahu rabbi wala ushriku bihi shay'a wala xawla wala quwwata illa billahi alali alazim awnaka ya muin wa bika nastain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida sëriñ alxadim loo ñëw leen di nuyu bu baax te di rafet bu baax dalal gi tasagal gi di ci nuyuwaat mboolem waa MK TV ak mboolem waa kuréel liggéeyal ku tedd gi yéen ñaan yàlla liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ bi yal na ko sëriñ bi nangu te gërëm ko suñ borom fay leen ci yool wu dul jeex di am mbégte lool nag nekk ci bërëb bu màgg bi xaytul xadiimu hawa xaytu almuridu hawa sirran yutahiruhu min kulli adnaasi ci peggu Sëriñ Tuubaa radiallahu taala anhu fas yéene waxtaane soppem ba ak xaytam ba kam doon liggéeyal di yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu am nañ ci mbégte lool te ci kontante lool comme ni ko waxee nag dañoo tànn thème bu am solo te da sax daanaka mooy saaluk jàng dundug yonent bi sallallahu taala alayhi wa ndax yonent bi yàlla da ko indi ngir ñu roy ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam royukaay bu rafet kon kon dundam lépp ay bind la mm-hmm. ndax dundug yonent bi sallallahu alayhi la juy dox alxuraan mooy mooy mooy mooy bi mm-hmm. dund yonent bi sallallahu alayhi nag moom mooy pratique bi mm-hmm. kon nag li ñuy waxtaane yonent bi lépp dañ cee bëgg a jëlee ay bind mm-hmm. ginnaaw dund gi yëpp nag ay bind la te bind yooyu yëpp nag xajul ci benn jamono léegi nag ñu war koo fàttaliku waxtu wu ne waaye nag bu jamonoy gàmmu ñëwee nag mu gën a farati kon dañuy fàttalante ay bind yu néew rek yoo xam ne dinañu doy yóbbal kullu ma qalla bi rek ci fa yi xayrun min kathiril anaay lépp lu néew te am njariñ moo gën lu bari te sonle bokk na ci alxadim loo dund yi bind yi mën a jàngee ci dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njëlbeen te nga xam ne dañuy fexe ba bind yi itam insha allah nekk loo xam ne dañ ko mën a teg teg ci société bi waaw société mën koo jëriñoo loo xam ne dañ koy téwari ba nga xam ne kiy déglu la naan lii daal moom <laughs> naka laa koy defee mm. waaye daal loo xam ne maanaam kii diglu mën na koo mën na koo jëfandikoo léegi incha allah tabaraka wa taala bokk na ci liñ ci njëkk a jànge ci dund yam saa salaam am solo gi ñaari waajur yu baax am solo nekkate ci yaru nit ki alxadim seetloo yonente bi sallallahu bokk na ci ni ko suñu borom waajalee ba doon kii mu doon da ko suuf su baax su war a wàcc ndax suuf soosu mu wàcc moo tax gàncax gi mu mel nii yàlla yàlla da ko ca jaarale wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi tànnal ko càll goo xam ne dafa set wicc ba bu ñëwee itam kenn du am lu mu koy xeebee kenn du am kenn am lu mu koy tooñee te ñim jaar ñëpp ba ci suñ mam aadama ba ni mu agsi ñoo ñëpp ñu baax lañ loolu di lu ñu mën a jàng ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngat dana ñëw moo wax ci miim yéene wa huwa alkarimu alladi maa zaala muntaxaban min saadatin kullu fardin minhumun faxama nadbun karimun min al axyaari walkurama gurrun jaxaa-jaxaa gurrun fadluhum aduma ana qadistu fi min xiyaarin ma ata ahadun minhum bima yuxjilul axyaara wal azama ne yàlla da ko tànn mhm. sang la buñ tànn nga xam ne ci ñu baax rek la jaar mhm. ñu jaar ñëpp ay sang lañ. Mm. te li ci am solo mooy ay maamam kenn mësu cee def lu lu luñ koy yeddee. Mm. xam ne kon suñ borom subhaanahu wa taala da ko waajalal. Mm. ay waajur yu baax. kon yëg ci ne. bokk ñu mën a jàngee junni yonent sallallahu sa wasallam mm-hmm. ku bëgg njaboot gu baax. Mm-hmm. da ngay dem wute jiw bu baax. Mm-hmm. suuf ko suuf su baax. danga tax bu nit ka bu ci bu ci dara juddoo mu neex a defar waaye wutee nu la neex dencee nu la neex bëgg cee am doom jala neex su waa day day mën a jafe lool léeg-léegi ñu gis nit të lool te doo xam lu ko lu ko tax a të waaye nag boo xamee cosaan ya ma ne ah kii ka të bettiwul moo kon bokk na ci yi nga xam ne moom képp daa jamonoy gàmm gi. Mm-hmm. ñi fas day bëri. Mm-hmm. bokk na yi ñu war a bàyyi xel bu baax. Mm-hmm. mooy tànnal ki nga ki nga ki nga bëgg mu doon sa doom wàccu wàccuwaay bu baax a baax. ni ko sëñ Fall doon waxee ne. maanaam walu yi walu walu yi jeexaguñ waaye nag dañoo gisagul ci ci kuñ wàcc. waaw kon nag su boobaa. loolu tamit ñu mën a jàngee. ci dund yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la bokk. waaye tamit bokk na ci ñu ci mën a jàngee. te mu baax lool ci jamono ji mooy ñu xam ne toog suñ borom ak taxawu suñ borom moo gën lépp waaw mm-hmm. ah, day ah. doy na sëkk walis leneen mm-hmm. wa man yatawakkal ala llahi fa huwa xasbu ku wéeru ci yàlla mm-hmm. mu doy la sëkk sama waa ji damay nettali barke ma si Moussa da ko waxoon ne ko bul wéeru ci kenn ba man mi mi la jur sax bul wéeru ci moom daana ko miir bii sax bul bul ma wéeru ci miir bi waaw miit bi sax bul wéeru ci moom waaye danga nga wéeru ci yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ci yàlla mu doy la loolu yàlla dañu ko jàngal ci yoon bi sallallahu alayhi wasallam xam nga sallallahu alayhi mooy nit ki gën a réussir mooy nit ki sotti waaye sotti gi mu sotti nag yoonu kenn néew mm-hmm. yàlla rek la mm-hmm. ndax li tax yàlla da yàlla dajee teel a génne ñépp mm-hmm. ndax laata muy gën a àdduna ci la waajuram noppalu am na moom juróom ñaari weer wala juróom benn weer fekk fekk na waajuram noppal Abdallahi mu gën a àdduna gën a àdduna ci ak njirim ba sax ñi doon ñëw doon jël sa ñuy nàmpal dañ nga faa noon a bàyyi ngirug ngirug njirim waaye yàlla feeñal ci moom barke taxawu ko ba ba ko jël gis na ci moom barke boo xam ne ay ay moroom amuñu ko taxaw taxaw yàlla tàmbali foofu waaye mu mel ne des des na fi waajur wu jigéen mm-hmm. ñu dox juróom benn at suñ borom yóbbu waajuram wu jigéen mm-hmm. xam ne moom léegi nag amatul waajur góor mm-hmm. amatul jigéen mm-hmm. kam fi dese woon muy maamam Abdul Mutalib fonkoon ko lool daan mu daan toog ci kaw lal bi nga xam ne kenn daanu fa ñemee toog ci doomi Abdul Mutalib yi waaye buñ ko mosaan ay Abdul Mutalib daan leen bàyyi leen gos ji am na dina am mbir mu rëy rëy ci kanam waaye ñu yaakaar ne Abdul Mutalib dana fi nekk ak moom mm-hmm. <laughs> yàlla bëggoon ne kii moom mm-hmm. moom maa koy maa koy féetewoo sama bopp mm-hmm. daa bu amee juróom-ñetti at Abdul Mutalib may maamam ma ko fonkoon lool daa di daa di wàccub liggéey Abu Talib moo fa des di ko di ko aar di ko yar maam ni màggee te Abu Talib xam nga ni sang la woon waaye doole ji moom naa bañ ñu amee doole lool ndax sax ñoom bañ demee ba màgg moo ko Abbas mhm. loolu ñu def ci mhm. jël mu ba ba ñaal yi ñëwee ci moom ngir ñu dimbalee ko seen seen seen seen bokk mhm. kon nga yëg ne foofu moom suñ borom moo ko taxaw ba maam doon ki muy doon te loxo kenn dugg ci moo tax lu waaye lu waaye mën a nekk tim bu bàyyee boppam boro boppam ak boroomam mu doy ko sëkk te yàlla ku mu wuutu ci nit ñi gën ci nit ñi foofu moo tax ne ko alam ya jiddika yatiman fa aawaa xanaa yàlla fekk la woon ngay jirim mu fat la woo jadaka daalan fa hada nga sànkoon mu gindi la woo jadaka ailan fa aghnaa mu woomal la kon kooku daa bay bopp suñ borom kon nga yëg ci ne taxaw suñ borom doy na sëkk wali walis la neen na fa neen fu mu gën a feeñee mm-hmm. mais taxaw suñ borom day sëkk ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam tollee ci gàddaay yéefari màkke yi yëg ne kii bu génnee dëkk bi kat bu demee dana am doole joo xam ne moom dootuñ koo mën a jàkk jàkkaloo ak moom ba ñuy waxi pexe waxi pexe pexe yu nekk ñu wokk dañ ko génneek dañ ko def lu ne fekk seetaan yi ngi seen biir daal daal nañ ko rey <laughs> la'anahullah ba ñu ne daal nañ tànn ay ndaw ci waa Quraysh giir yëpp kenn nañ tànn fa kenn ngir nañ ñëw fas yéene koo rey waaye yàlla moo mën a taxaw yàlla xamal ko lañ nar xam ne bañ fanaanee ca néegam di ko garde dafa génn rek xëlam leen suuf ba kenn gisu ko Sëriñ Tuubaa wax ci raay yi ne baatu bi makrin adimin xawla marqadihi wal minhum bi suuin fiihi ammaaru wa qaabaluuhu bi suuin xaasidiina lahu fi laylatin saara fiiha wa huwa sabbaaru xam na ali ibn abi taalib la bàyyi mu mu génn kooku romb gam ay waxambaane yu fas yéenee taxaw ngir rey ko foofu dara génnewu ko fa lu taxaw suñ borom subhaanahu wa taala waaye la ca gën a yéeme mais ba mu génnee waaw màkk dañoo teg neexal bu rëy a rëy daan ku ko ku ko dab am am neexal boobu suraaqa ci pexeem yu rëy moom mu fexe ba mu déggee kuy xibaar loolu mu fexe ba génne ci nit ñi daal moom mu rek des ca waaye nag foo war façon bu baax a baax fas yi ne ko dabi mm. waaye foofu dem suñu borom taxawu ko fa ndax foofu moo ko yàlla rek la mm. la gaa yi Moussa waxoon ne kalla inna maa ya rabbi sayahdin ba ñëwee ba daj ba daj géej gi xam ne amatuñu pexe Firawna naa ngi seen ginnaaw mm-hmm. te géej gaa ngi seen kanam mm-hmm. ah sama borom doy na ma képp ku nekk ku nekk ci àdduna te doxee ci gis-gis boobu sama borom doy na ma mm-hmm. faw yàlla gén jox jox la pexe kon sallallahu alayhi wa sallam ba Suraaqa tawee ba dab leen suñ tumaa naan wa wajjahu naxwahu man waajaruhu ala ityaanihi فوق طرف وهو كرار ساقوا صراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه بجواد كي يفوز بما يعطي من الأجر ثم الطرف bi sallallahu alayhi wasallam ci taxaw yàlla yàlla dafa def suuf si mëdd tàngi fas ba fas yi mënta dem soo ñaan ko njëkk yonent bi may ko mu mu mu ko dabiwaat far suuf mëddaat ko suñ tubaa naan wa ahadal barra marratin li yunqidahu xatta yatuuba li man li dan bi xafaar te boobu amuñu benn pexe nag loolu yàlla rek waaye yàlla suñ boroom ku ko bàyyi sa bopp rek mu mu mu doyal sëkk waaye la ci gën a yéemewaat mooy bañ rëccee suraaxa moomu dañoo romb am xunti fanaan fa waaye bañ fa fanaane bañ fa nekkee nag yéefaru Makka yi maanaam di topp seeni jeexit di topp seen i jeexit ba ak sa ci xunti ma xunti yàlla mi dara tëwul def jargoñ lënd fa am pitax daat fay nen tàgg fa xam ne ñoom bañ ñëwee bu ñu sëggoon gis gis yoon bi sansan ak bakar mm. waaye taxaw suñ borom ak kaaraangeem tax na seen loos yi mu ñëw sëgg dama sax ci kii ma ne yàlla kii ma ne yoon bi sansan yi gën a rëy mooy lu tee ñee sëgg. koo xam ne yaa ngi seet nit. ba àgg si fi mu nekk te mënoo sëgg. da suñ duwaa da ko boole ci. kii maa ngi yéen di sallallahu alayhi wasallam. ñu ne wa min xawaari qabada maa xaada gaarul muqtada. salla alayhi man hada. fuaadahu bil xikami. nuurun bi ankabuutin nasajat. maa xabaa min athbatat. xawman bihi qad satarat daatayhima kabulami wal kaafiruuna qad ataw wa ataral maaxi xafaw wa minhu shay'an lam yaraw rajaw bi alayhi maanaam ñëw nañ ba tiim ko ba sëgg nga xam ne bu sëggoon gis ko waaye nag mënuñoo gis dara na waaye loolu waa lool ximal xafidil maania yugni anil madafia kaaraange suñ borom moo gën ay këno waaye nag yépp jàmm bu torox la bàyyi ko sa bopp ak sa borom li kulli abdin qaashin yatlub xayra xarami ala bu say naan bandul xamaama wa dannul ankabuuta ala xayril wara mm. lam tansut walam taxumi mm. wiqaayatullahi aghnat an mudaafatin mm-hmm. min adduruuci wa an aalin min utami mm-hmm. kaaraangeeg suñ borom mm-hmm. moo gën a doy sëkk nga sol ay ay ay sangewu ci ay tata dugg ci ay lu lu lay aar lépp bàyyi ak sa bopp suñ borom moo gën a wóor loolu loolu moom naa ne suñ jàmbaaj doñu sëkk mhm. waaw bu muy dem ci géej gi yu baliwul dara yaatu xanaa xalimaam ak xalimaam ay këyitam mhm. waaye gis ni ko suñ borom aaree ci digg yi noona ba mu ba mu ci jàmm mhm. loolu doy na sëkk firnde ne bàyyee sa bopp sa borom maanaam doy na sëkk nag ñu wax ne charte si charte yàlla na nañ yàlla waaye wóoluwuñ ko wóolu gi nag moo jafe waaye nag boo xasee bu wóolu ci sa wërsëg mu doy la yàlla garanti wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku bàyyee yàlla sa mbir mu doy la sëkk yooyu benn la ci bind yi nga xam ne mën nañ koo jàngee ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wa bokk na ci ba tey bind yi ñu war a jàngee mooy ki bëgg a yéwénal day ba noppi doo ko war a yéwénal alxadim yonente bi sallallahu alayhi wa laataa muy doon ab yonent mm-hmm. daa fekkoon mu defaru ba noppi mm-hmm. ndax xam nga ni waa makka mm-hmm. da nañ ko woy al amin ku wóor ki ba doyloo ko seeni mbir ba ba muy am fanweeri at ak juróom bañ demee ba xëccoo ba nar a xeex ca Kaaba ga moo ñëw àtte leen kon moom laataa nubuwa gi yonent gi nekk ci moom fekkoon na mu mu baax ba noppi nekkate kon bala ngaa baax bala ngaa baaxal mhm. dangaa war a baax ba noppi naqiyun taqiyun saalihun wa huwa muslihu waa nee na yonent ku sell ku ragal yàlla waaye nag ku baax la mu mhm. noppi doog wax na kuy baaxal la mhm. ah, waaw saalihun wa huwa wa huwa wa huwa muslihu loolu a wax lu bëree bëri bëri bëri yow buy wax ci yaru yonent bi saa sallam danaan kañu yar di yare waaw ah, salli ala al muaddabi mm-hmm. yàlla nga julli ci kañ yar adil xormatil muaddabi borom war ma ji yare mm-hmm. kon muaddab moo jiitu maanaam ah, day nekk ku yar ba nopp kuñ yar ba nopp mu doogo waaye mu doo ko yare mm-hmm. waaye li yàlla naan saaxidu shayin laa yox ku ñàkk dara mënu mënu koo joxe murabban murabbin <laughs> murabban murabbin rasulun nabi najiyul ilahil karimul fasix maanaam day nekk murabban di ko ñu yar ba waaw ah, loolu loolu loolu lu am solo la mm. moo tax sallallahu alayhi wasallam loolu mën sa ko jàngee ci moom te boo seetloo melokaan yi ko Xadija melal mm. radiyallahu taala anha ci wax na noonu la mel mm. wallahi laa yuxzika allahu abadan mm-hmm. innaka la tasilu rahma mm-hmm. wa taxmilu lkalla mm-hmm. wa tuksibu lmaaduuma wa tuqri dayfa wa tuinu ala nawabi lxaq lii mooy nekkoon ay jikkoom laataa muy doon ab yonente waaw mooy ne ko yow da ngay jokk mbokk ku néew doole nga gàdd ko ku ku ñàkk nga nga fagul ko ba mu woom mm-hmm. di benneel gan mm-hmm. di dim di dimbali nit ñi ci ci seeni jafe-jafe mm-hmm. te bu dëgg amee nga taxawu dëgg kooku nii mooy ne ko ak jikkoom kon moom laataa muy doon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di di yonent bi yàlla dafa doonoon ku baax ba noppi Sëriñ Tuubaa ku maa tagg yonent bi la. nga la tàggam te jiital ne ku ku baax la kuy baaxal nga mose mose loolu ci ala man ilaahi fasalli ala man hada mm-hmm. mutian mutaan lirshidin januux mm-hmm. maanaam ku topp yàlla ba noppi nag mm-hmm. daal dooga doon ku ñu topp ne ilaahi fasalli ala man doani bi barrin wa maaxin li kulli qabix day baax ba noppi daal dooga far nag lépp lépp li saxaan loolu maanaam rawatina nag képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu jëriñ nit Euh, maanaam kooku moo gën a yeyoo. de defar biiram. ndax fi mu nii wax ji jëriñ nit ki rek. mooy mooy wax ji ji ji ji ji nga xam ne am na am na ma ruuxaani ya tuuti moo tax euh, bu société bi demee ba am gàllankoor ci dégg wax ji su boobaa ñi wax ñoo war a xool seen bopp. Mm-hmm. lan moo tax wax ji amul amul taafir mm-hmm. waaye nag bu damir bi. jéemee teewul damir ba damir ba damir bi wér ba noppi ba biir gi wér mm. bu wax wax ji génne mën naa am njëriñ mm. mooy yonente yëpp nim noonu lañ mel mm. buñ jëlee misaal ci saalix rek xaalu yaa saalix xad kunta fii naa marjuwan qabla haada yow kat yàlla laataa ngay wax te nañ ci yow yaakaar kon nag ñoom ñëpp dañuy nekk ay ñuy baaxal ba noppi doo ko nekk ñu ñuy baaxal te ku baax ba noppi nag te la yàlla yàlla ci yow lay def mbiram allahu aalamu xaytu yajalu risalata moo tax képp kuy woote jëme ci yoonu yàlla wala képp ku yor kër rek sax yow mii borom kër gi li nga bëgg say xale nekk ci maanaam dañ ciy nekk dañu wax sax ci wàllu tarbiya lu gàtt maanaam fi doon ne xale bi nga bi yor ci kër gi bëgg koo yare ci ay jikko moom jël jël jël sa wax wax wax ji di bëri. moom déet déet maa def ci kanam muy gis rek ndax ab seetu la. te moom li ngay def rek lay gis. loolu moom dañoo bëgg mu bind yi nekk bind boo xam ne. moom kii kii kii di ko déglu. moom da koy déglu léegi daa ko jëfandikoo léegi. ba bu ngeen xale bi di wax bisimilah ci lu ñuy def yow fi xel ba looy def rek daal wax bisimilah boo bañee muy saaga waaye. bëgg a bi xale bi saaga ba noppi nag te léeg-léeg bu defee dara nga duuba ko saaga ko. Mm. Ah, <laughs> kon kon kon kon mu rab ban mu rab bi mooy mooy mm. da ngay yaru. ba na fa doog a yare. waaw tabarkalla. macha allah ñetti tomb yooyu nga mooy bi nga xamee ne moom la ñaari way nit ki bala ko wala mooy gënaat ñu tànn ko ñaari. meññeen mu baax mooy ñaari waajur yu baax mu mel loolu bokk nañ ci li ñu mën a jàng tey ci dundu Yonent bi alayhi salaam mooy ci jamono jii nii ñun ñi nga xamee ne dañoo war a sampi kër wala ñuy sampi kër bokk na ci li àq ji nga xam ne séq nañ ko ak seeni njaboot mu ñu tànneel leen yaay ju baax wala sax ñu tànneel leen baay ju baax loolu nga xam ne nu ko Yonent bi alayhi salaam waxoon ci xadis ba di wax ne dañoo war a takk sa jigéen ngir yii muy bëgg a lim ngir taaram wala ngir alalam wala ngir sax askanam waaye nag bu demee ba yëpp mënut a ñàkk neneen na jël borom diine ngir lan ngir diine nit ki bu ko melaw bu melokaanoo melokaan wi lislaam bëgg dees na mën a yaakaar ci moom ak njurte wala njërte moo xam ne njërte moo moo baax la kon dañuy gis ne loolu booy gis sax dañuy gis ne ku mel ne Abdullah li jiitu ñu koy jox Fatima jigéen ñi màkk yi daan nañ ko gis daan ko gaara seen bopp ngir gis leer gi nekk ci moom waaye da ngay gis ne booba ànd ak lu lépp nga xam ne numboo amagul sax waaye baax ji baax tax na gaara yooyu ñu kaa gaara seen bopp mu ko daan daw ba dañuy wax ne bi nga xam ne dugg na ci Fatima moom ko njëkkee dugg ña ko daan gaaral ci ñoom dabaat na leen di wax ne ana la ngeen damal li ngeen mën a gaaral ñu mm-hmm. ne ko dafa nekkatul ci yow loolu yoon ne kon avant muy muy yor suñu amina la bëgg suñu yaay amina mm-hmm. avant ma ko yor. Mhm. yii yëpp daan xew ci bi fi nekk màkk waaye da ngay gis ne weggu ak ak ak wattu bi mu wattu woon tax na ba lu bon moo tax ma amal xalaalu xalaalu amal xaraam fa xaraam. Mhm. loolu yaakaar naa euh, wax ju siiw la ci ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu siira. Mhm. kon dañuy gis yu baax lu am solo la ci dundu doomu moom bu fekkee ne bëgg nañu ci moom ak baax loolu nag moo xam bu góor bi la wala bu jigéen bi la loolu nag dañuy dañ ni nga ko indee day mel ne. ni ku jigéen ki war a ku góor ki wara a tànn soxna su baax mhm. noonu la tamit ku jigéen ki war a mhm. mhm. tànn borom kër bu baax jigéen tamit am na àq tànn borom kër bu baax waaw beneen bi mooy suñ borom ni muy taxawoo jàmm ab jàmm loolu mooy lan nag mooy indil ma ko ci lu gën a yaatu mooy saa yoo xam ne jàmm bi jël na léppam jox ko suñ borom bañ nga xam du delluwaat kenn ku dul suñ borom ak lu situation métti ak lu mu xat xat xat da ciy mën a génn wala sax da ciy mën a jëlee ndam lenn li koy waral la mooy lan mooy wakiilu gi muy wakkilu suñu borom loolu indi nga ci ay mawaqif yu bëri bëri ci biir dundu yonente bi alayhi salaam bokk na ci ma ma ma mawaqif yooyu noonu rek mooy waxtu yi nga xam ne waay juróom jóge na fi yaayam jóge fi ak maamam mu toll ci ndaw ba ni Abu Taalib yaree ko da ngay gis ne ci biir diggante yi yëpp yonente bi alayhi salaam dafa daan sukkandiku ci maanaam euh, ci ci ci ci boppam. sukkandiku ci boobu sax moo ko yóbbu ci mu war a sax di commerce ci ci suñu yaay Xadija ak tamit euh, sàmm gi mu daan sàmm loolu lépp day wane ko ni yonent bi salaam bu teel a bàyyi boppam na ci ndawam donte ñu xamoon ci nit bu bu sa bàyyi teel fi teel mooy surtout ku nekk nga nekk nit koo xam ne xëy na kuy wër di di di ñaaraatu wala sax di wut lu am ci yeneen nit waaye da ngay gis ne yonent bi salaam ci histoire boo ko toppee da ci mën a gis nit ko xam ne ku bàyyi woon boppam suñu borom la loolu nag day mel ne euh, bind la boo xam ne ni ñu bëri bëri ci nit ñu baax ñi jël nañ ko ci yonent bi moo tax li ñu mën a am ci jamono jii tey ñu mën koo am bàyyi gi ñu bàyyi woon sëñ borom loolu ku ne xam ne sëñ bi sax sëñ Tuubaa ci ay ñetti mawqif xam ne benn bu ci ne bàyyi gi bàyyi suñu borom boppam tax na li ko yàlla def mu mu jox ko di si njëkk rek mooy bi fi waajurum jugee mm-hmm. nga xam ne am nañu ko doon gaaral ci mbirum àdduna da koo mm-hmm. da koo bàyyi xul mm-hmm. da xas biya ak tafay waxul mhm. xasbi rabbi wax tax lay dugg ci mhm. gis nga boobu nga xam ne dafa bàyyi boobu mhm. nga xam ne boobu lor bakkan mën na ci am loru yaram lu bëri ba suñu borom mën koo garanti ba a ñibbi si waat beneen mooy xew xew lu mel ne derumaan nga xamee ne waaye boobu pare woon na ci lu bëree bëri ci wàllu armée ci wàllu yu bëree bëri waaye bàyyi gi mu moom la nekk mooy derumaan kon daal day mel ne nit ki saa yu bàyyee boppam suñu borom te aaya bu mu wax wa may takoon ala lay wa may yatawakkal ala lay foofu xasbu loolu mooy ki nga xamee ne tamit dafa war a dañoo séntu ci moom ak baax wala dañoo séntu ci moom ak de ak defar wala dañoo séntu ci moom sax ak yéwéne ci société bi mu nekk nii il faut que dafay baax ndax nit ki su baaxul euh, jikko yi nga la war a def ci ci ci nit ñi ay cëram sax du ko tàmm maanaam war a war a digle ak baax te yow baaxoo pour nit ñi mën a xam li ngay def boo baaxoo rek say say say say jëf wala say cër du ko tàmm kon dañuy gis ne ci nit ki bala moo euh, wala képp koo xam ne ñu seen ci moom mu war a jiite ak lu mën doon na fexe ba yéwénal boppam te yéwénal googu yàlla tax loolu ku ne xam ne ci dundu yonent bi salaam kuñ maasaa xam la ci mu daan dem ci xunt yi di fa wéer di ko jaamu suñ te loolu booba lislaam ñëwagul mm-hmm. loolu lépp li ko waral mooy teel a gi teel a xam lu araam moom tabiaa ci boppam da koy bañ waaye jëmmi lu bañ moom teel gi mu teel la xam ne tabiaa ci boppam tabiaa doomu ni ko yàlla bindee daf dafa bañ lu lu lu loo xam ne yàlla diglu ko loolu nag bi lislaam dikkee gis ne mbooleem ñi mu daan def ci ay xeet a dëgëral kon day wane kon moom mi ngi nekkoon ci fitra boo xam ne fitra bu salima la loolu kon mu nekk loo xam ne ñu war a jàngat ci dundu yonent wa salaam mhm. kon ngir mën a xëy na waxtaan wi mi ngi bëgg a kii dañuy ñëwaat ci beneen ñaareel tomb bi ci yi nga xamee ne mënees na ko jàngate ba tey ci dundu yonent bi salaam sëñ Bachir nga mën ñu dikkal xam ne daa mel ne waxtu yi li ci des euh, xaw naa bëri xawtu bëri <laughs> ngir ñu gën a waaw tawakkal tawakkal sëñ alxadim taariq yi am na solo lool te ñambaas gi am na ci solo tawakkal moom dundu yonent bi salaam daa fees lépp ay bind la <laughs> waaye xam naa bokk na ci ci gën a fees rek yi ñu ci gën a mën a jàngee mm-hmm. mooy jikko ju rafet mm-hmm. ndax sallallahu alayhi wa sallam dane woon innama bu'ithtu li utammima makaarimul axlaaq yàlla dama yónni ngeen ma mottale jikko yu rafet yi mu ñoroon ko lool ci ak wooteem suñu boroom digal ko ci aaya yu bëree bëri bokk na ci jikko yooyu nag lawet kilifa wala nit ku bëgg a defare walla nit ku baax ku nekk daa war a di jéggale di jëllale yàlla dana woon yonte bi xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jaahiliin wax ah, del baale mhm. tey dig la njëkk mhm. te du mooy ñi xamul mhm. ne ko bu nekkoon ku naqay dayet di ko tàng boroom yëpp dañ dem bàyyi la walaw kunta faddan galiizal qalbi lan faddu min xawlik kon ku bëgg a jëriñe faw nga nooy nooy lool ba mel ne ku ñàkk fayda dafi déet fekk ku ñàkk fayda waaye nag da ngaa bëgg mm-hmm. na ñu dugg ci diine yi mm-hmm. ñoo xam ne njikkoom moo leen duggal ci diine yi sallallahu alayhi wa sallam dañ nettali ne mm-hmm. Buxaari Muslim nettali nañ jële ci Anas Malik mu ne bis doon dox sol na yër bu xaw a tal am benn ci waa kaw gi ku ñëw dab ko poño ko poño wu tara tara tar waaw nee nañ ba sax yére bi jeexantal ci baatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dan na ko yow yow yonente yàlla bi maanaam jox ma ci alal ji la yàlla jox <laughs> waaw jógee ci kaw nga boo koy boo koy boo mhm. ku jógee ci kaw ga ñu fekk kili kilifa toog mhm. ci alal ji la ji daan daan daan jox leen ko nga ne kooku. lewet la yéen di sallallahu alayhi wa moom. moo tax suñu tubaab ne la huwa minal xilmi xilmi maa lam yaxwihi jabalun laqal ada fil baraya wa huwa sabbar am na ci lewet loo xam ne doj montagne sax xam montagne daa mën a lewet ndax ni amee doole nit ki day yéeg ci kawam da bañantu ba te moom du dara mm-hmm. waaye li muy am lewet dara yéen di ko gën a dal yéen di sallallahu alayhi ko ëpp ak ak lewet loolu bari na lu am ci ak maanaam dundam sallallahu taala alayhi wa sallam dañ ne am na bis ku ñuy wax zaydun saxna kenn da woon ci yahudi dafa jàngoon téere yi nag ba am xam-xam lool mu xam ne daal yonent bi sallallahu alayhi mii gis na ci moom mbooleem xeetu màndarga yi mm. waaye gis na ci ne am na ñaari màndarga yoo xam ne daal wóorugu ko ba xam am na ko muy ak lewetam da jiitu waaye tim nekk noonu tim lu waaye réer réer réer du ko doole loolu ak dal ak lewet mu ne mu ne daal dinaa ko natt ba lebal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dara ba mu ko lebalee laataa ñu agsi ci dale ba dale ba des na ñetti fan mu ñëw rek fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog Seydina Omar ma nga woon ca jotaay ba ñëw rek poñe ko daan na ko yéen waa Kër Abdou Moutalib nii rek ngeen def. Mm. doo leen fay doo fay bor. Mm. daan ko fay ma sama alal si non man gëdd ko daan na ko yéen looy def nii. yéen ko déedéet Omar bu def noonu daal ree daan ko yow kay mën ngaa wax joo xam ne moo gën a rafet li mm. danga may laa biir daan ma bu ëllëgee yow del ma nga rafetal fay bor. waaye itam neel neel daal ne daal ne Zeyd mii boo liggéey na maanaam rafetal nii nii maanaam fay fayee ko ndax bor bi des na des na des na des na ñetti fan. waaye nga yëg ne kooku lewetu yonent sax moo ko dugal ci diine. sa yonent sa sa daal ne Seydina Omar fay ko. te boo demee nag na ko dolli. na nga koy dolli ngir merloo gi gii nga ko merloo ci gëdd gi nga ko gëdd. boo demee Seydou sax Sane laa koy leeral nag li taxoon mu def lii mu def. daan na ko Zeyd ah, daan na ko ndax xam nga ma mu ne ko déedéet Seydina mu ne ko déedéet mu ne ko man la Seydou Sane ne ko yow borom xam-xam nangam. mu ne ko waaw mu leer ko ne nag ñaari jikko yi laa doon natt ci Yonent sallallahu alayhi wasallam ba gis na ko. kon ku ku ku ku lewetoon la. kon tim jamono ji ñu toll ci jamonoy fayantoo. rawatina ci mboolem xa ci xaalo yi yees yeeg ak ci jikko yu ñaaw yi léegi léegi ba baatu defante jukk ba xew. loolu maanaam lii rek lewet rek moo ci moo ci moo ci moo ci moo ci génne nit ñi ak ak dal ndax saa soo dalee rek suñu borom subhanahu wa dana la dana la fajal da bëgg a faj te te maanaam doo doo ci ñaaw doo dara te toofeex toofeex rek nga ci am ndax fi mu doon nii am na bis benn yenn saa ci xare yi xaw a wét ci saxaaba yi nekk ci bërëb benn kenn ca ñoom doon xeexal bett ko yonent sax mi wékk jaaseem ci garab gi mu jël jaase ji tiim ko daan ne ko tey kan moo lay aar ci man ba maanaam doo ma rey yow yonent bi mm. yonent bi daan na ko yàlla mm. waaje waaje tiit tiit ba jaase ji rot yonent bi jël jaase bi ko yow <laughs> kan moo lay aar ci man <coughs> daan ne ko ah amul lu wax yonent bi daan ne ko waaye ndax ndax gëm nga ne amul benn buur bu dul yàlla te man yonent bi yàlla la waaj ne ko déedéet loolu déggoo ma ko mm-hmm. daan ne ko waaye nag moom dinaa la garanteel ne du ma la xeex mukk mm-hmm. te du ma bokk ci ñi lay xeex kooku ki bëggoon rey yonente bi yonente sax da ko bàyyi mu dem mm-hmm. da ko waaye kooku ba mu demee dana leen maa ngi jugee ci gën ci ki gën ci nit ñi <laughs> waaw maa ngi maa ngi jugee ci ki gën ci nit ñi nga xam ne kon kooku ak lewet la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wan ak ak mbaal la ko yonent bi sallallahu woon waaye kon waruñoo nekk ci jamonoy defante ku ku ma def nangam rek ma ma maanaam def la ma ma def la nangam waaye baal daa bokk ci yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala da ko tudd fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah fi doon waa ahlu màkk kenn ku ne xam nañu yonent bi dañ ko génne woon màkk waaye ko génnee màkk ba mu demee ba jékku leen ba xam ne ñépp ngi doon xaar mu fayu ci ñoom mm-hmm. dana leen izhabu fa antum tulaqa dem leen baal naa li yéen ñëpp nga xam ne yow noon yi la gënoon a sonal ñoom nga baal moom moom moom xam ne léeg-léeg <laughs> boo dee waxtaan yonent bi saa sallam da ngay gis suñ tubaa rek waaw ah. ah, ah, afawtu anil a'daa'i li li ghayri li ci li ci li ci li ci yéeme mooy foo waxee yonent bi rek mm. masal boo wax ci moom mm. misal boo jël ci moom da nga jëlaat ci dund sëñ bi ndax comme comme ni mu xewoon ci naaj yi waa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waaye ni mu dina xewoon ci Sëñ Tuubaa fi mu dee Sëñ Tuubaa ci gànnaar am na koo def noonu fekk fexe ba dafiy pexe xisa ba daa gudd mm-hmm. waaye ba àgg ci moom ba tiim ko bëgg koo rey far jaasi ja lonk mm-hmm. waaye kooku dem ba Sëñ Tuubaa jógee da koo neexal mm-hmm. ko neexal bu rëy boole ko ay nit ne nañ ko nañ ko aar ba ba mu génn yooyu moom yooyu nag moom day gën a wane nag jaxasoo gi Sëñ Tuubaa jaxasoo gi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaye te bokk na ci ñu ci mën a jàngee nag mooy ku la defal lu ñaaw nga def ko njëkk loolu suñ dañ koy misaal ci ne na nit ki da mel ne garab rek garab gu am meññe boo ko sànnee xeer mu sànni la aw ñam sànni la ak lor moom moom mu sànni la am njëriñ yàlla moom dana garanti dana loolu ku ko def moom kooku ka lay def loolu dana dem ba mel na sa xarit waaye nag dafa yombul ba mu ne idfa' billatii ak ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim day mel ne sa sa doomu ndey mm-hmm. ki lay defal lu ñaaw nga ko nga koy defal rafet mm-hmm. bu yàggee mm-hmm. day dem ba mel na sa doomu ndey ndax ndax teraanga moom asgor attunu ko teraanga ngay yeree asgor pinte panta nga suñ bay jawata waxewoon moo tax it euh, ku la defal lu ñaaw def ko rafet waaye nag yombul ñaar rek ko mën a am ko sens lool ba maanaam ku mën a muñ lool wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xadin adim loolu dañ ko mën a jàngee ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sallallahu alayhi wa sallam xam Abdullah ibn Ubay ku xam dundu yonente da nga ko ci xam am naa feq la woon boo xam ne moo nekkoon Madina mm. ay jafe-jafe rek loolu indi yonente bi sallallahu alayhi mm. waaye boo nee ba faatu ak mbool teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Uhud nga xam ne dañoo dem bay xare ji mu daanaka mu yóbbu ñu bëree bëri ci mbooloo mu ñu wàññi ko nekk xew-xew boobu ñu loolu ñu sosaloon waa kër yonent bi sallallahu ne moo ko jiite woon te wut ànd def yëpp ba faatoo yonent bi sallallahu alayhi da koo taxaw jéggalu ko sax su nekkoon su ko jéggaloo lu ëpp juróom-ñaar ñu jéggal ko ma jéggal ko na ci ku lay defal lu ñaaw nga defal ko njëkk li ci yonent bi sallallahu alayhi neen neen na nettal dafa amoon ab yahut boo xam ne dëkkandoo yonent bi sallallahu day def ne moom boobu nag moom bañ ñu yonent bañ goo xam ne daal moo <laughs> fu mu toll da koy lor mm-hmm. waaye nag nekk te Madina moom sëñtaloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëccëg ndax bu ko loree nit ko waaye daan bàyyi ba guddi jot mu jël ay lor daal koy teg ci kër yonent bi sallallahu bund kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir moom bu xëyee rek dal ci yonent bi saa su xëyee rek jël lor yi nànk àndale teg ne ba ay fan nag yoo xam ne <laughs> yonent bi su xëyee sallallahu alayhi wa sallam du gis du gis dara dal du gis lori. <coughs> moom laajte ñu ne ko daa feebar. waaye ci baax ga xam kon bu dee kon nit ñaay dangaa ngaa da ndokk. waaye moom ci baax ga. dafa jug dem seeti ko fëgg buntam waa ji dégg ne yonent saa sama fëgg mu ubbil ko. daan ko mu mu mu ko lan la yonent saa sama daan ne ko ah man ko dama. ñëw doon la seet si mm. mu ne ko noo noo ko xamee mu ne ko damaa gis gis sa sa aada jeg naan def defatoo ko mm. <laughs> gis nga ko sa sa aada jeg naan dafa dafa jooy fóon yoon bi sallallahu alayhi wasallam jaaree dugg ci diine mm. nga gis ñeewante googu. ak maanaam def gi muy jëflante du rafet ci képp ku ko def lu ñaaw mu defante lu rafet kon loolu tamit nit nit ñëpp ko war a maasee doxee. waaw loolu bu ñu ko waatee doon doxee rek ñi ñi ñi ñi indi problème dañuy dem ba dootuñ mën am problème ndax benn benn benn juróom du yëngu ñaar farxoos nga boole ñaari lam wala wala wala wala ñaari pièces. Mm-hmm. Ah ñu ñu ñu doog a dégg yëngu gi. waaye itam bokk na ci ñi mën a jàngee ci dund yenn saa salaam. ñu xam ne lu baax lu mu ma doon yombul. Mm-hmm. ndax faw mu mu am njëkk. Mm-hmm. Sëñ Tuubaa sallallahu alayhi wa sallam naan Sëñ Tuubaa wa qaada lahu Allah muxtaalahu nabbahtukum maan ala kaddin bada lii qabla an ara ridan ma bada maa lii ab coona bu bu jiitu kon lu waaye dem faw nga am coona sallallahu alayhi wa sallam li baax baax baax bokk na li ñu mën a jàngee ci moom mooy ñu xam ne nekk dafa dafa daj lu métti doo ko ndax maanaam bu jëlee rek masalan ci juróom-ñaari at jàpp fukki at am na yoo xam ne ñoom lékk demoon nañ ba xiif lu am luñ lekk ndax waa Makka da leen embargo maanaam fexe ba ñii daal kenn lañ jox dara duñ jaayante ak ñoom duñ jënd ñoom duñ takkan duñ takkante ak ñoom nga xam ne ñoom sonn nañ lool ba tumuraanke xam ñeen saa sam dem na ba ñu ak waa këram ak yi mbokkam ñëpp ay xob yi gàtt lañ ay xob ay xob la ñuy lekk mm-hmm. waaye ba loolu demee ba jeex tamit teguñ ci ñetti weer abu abu taalib faatu ki nga xam ne moo ko doon protéger lu bëri ci waa màkk mu jaaxle ñu tegaay ci dara ñaari weer ci ramadan nga maanaam sayyidatna Xadija faatu nga xam ne moo atum njàqee la yooyu jaaxle ba génn màkk dem di xool ñu mu woo. ak ñu ko dimbali dem Taïf. dem ci kilifa yëpp ñëpp ñëpp rejeté ko ñëpp ñëpp delloo ko mu jaaxle lool ba sonn. ba xam ne ñoom lañ ko fa mujj génnee di ko di ko xaañ. muy daw boole kook seen dof yi xaj yi di ko xaañ ba ay tànkam sallallahu taala alayhi wa sallam foofu mu ne moom bu fa sëñ sëriñ bi nekkoon. moom moom moo xeer yëpp moom lay dal comme ni comme ni Zeyd doon def. Zeyd la ànd lool mu ko doon baare Sëñ Tuubaa bi ne. maanaam sama xaddi wiqaayatun li rijli mujtaba salla salla xaddi an an shawkatin wa maa yudaahi aqraba sama tànk day fekk leen saa lépp lépp maam lu koy jëm kon loolu lu ñu mën a jàngee rek ci la ndekete balaa benn njëriñaam faw nattu jiitu ko xam naa ne yi ñu mën a jàngee dund yoon saa saa bëy na lool maanaam du xaj ci bi jeexalee rek mooy bokk na ci ci mën a jàngee yoreenu kër ak nit ku yiw bu baax ci këram. moo léeg dañuy foog ne kilifa moom kilifa gi mu nekk ci ci yi dafa ko war a nekk ci biir këram. <laughs> fekk nag nit ki li baax mooy bu génnee ci bitti waaw mën naa nekk kilifa mel na gaynde jax bale lool waaye bu duggee ci biir këram mu nooy ñëpp nag. ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon ci waa këram. Sayyidina Khadija Sayyidina Aïcha ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu nit la woon rek ci biir këram. moo daan defar ay dàllam di liggéey liggéey kër gi ba sax léeg-léegi mooy defare boppam ak ñam aw ñam yooyu yëpp ngir jublu ci ak toroxlu waaye itam di wàcc boppam ba jëflante ak ñoom jëflante bu bu rafet ba sax euh, Seydina Aïcha am na yenn saa ko nañ rawante Aïcha mu ñëw ne ko nañ rawante moom mu raw loolu lépp muy jublu ci dalal xelam fexe ba maanaam bu nekkee seen biir nooy lool yenn saa dana woon ci gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te man maa gën ci sama waa kër kon demee ni am na loo xam ne maanaam mënees na ko amaana dañ ko xaw a doon ci lu bëri bëri maanaam ci tëju gu am ci ñenn ñi ak ak njaboot gi xam ne daanaka mais am barrage waaye loolu maanaam ci genn anam gi ci ñenn ñi day wuuteeg doxinu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax dim daan jaxasoo waa këram daan daan leen miinal boppam ba sax ñu daan ñu dañ ko ñeme woon. ndax fi ñu nii képp ku sa njaboot di wax ak yow di joxante ay kàddu. bu mu la métti ndax Seydina Seydina Omar bi sa waa woon def. mu mel leen ci ñu ne ko soxna mi daan ne ko waa kër Yonent bi sallallahu alayhi sax dañuy wax dañuy wax ak Yonent bi di ko tong. waaye teewul lépp Yonent bi sallallahu alayhi daan ko attan. da daan ko muñ. maanaam boo ko xamee boo ku jàng dund Yonent bi sallallahu ci biir këram lu mat lu mat waxtaanee la dana tax dana tax mën a yor kër. ndax lépp lu la def da yëg ne defoon nañ ko yonent bi <laughs> mu muñ ko mm-hmm. maanaam ba ñëpp soo ànd dëppoo ci bàyyi ko mm-hmm. ndax maa dañoo bëgg mu yokk leen mm-hmm. li leen di jox ci ci dépasse waaye teewul lépp nag yonent bi sallallahu muñ ko gàddu leen ko ba sax diire ji ji ji nga xam ne yàlla <laughs> da ko ci yónni ay soxnaam daan nañ daan nañ ko ci werante moom ndax bis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñi jaayante woon ci garab ga de yàlla doon dugal sawara kenn ci ñoom Seydina Xasan daan na ko xanaa yàlla waxul wa in minkum illa waaliduha xanaa kenn ñëpp ñëpp ñëpp cee aw ci saraat waaye yeneen tamit daan na ko su ma naji su ma su ma naji la dina taxaw su ma ñi rek dañuy mucc <laughs> nga xam ne kon ñëw mayoon na leen loolu ci boppam loolu tamit lu ñu mën a jàngee ci dund yenn saa sallam ne ne bàyyi leen xel ak tamit di diisoog ñoom mhm. ndax euh, maanaam diisoog ñoom génnee woon na julli ñi ci xat-xat ndax solo xol day wéy Umu Salama moo ci génne jullit ñi ndax bañ lànkee bañ a def mm. diisoo gi mu doon def na sam moom mu ne ko watul rek boo watoo ñëpp ñëpp mën dañ watu loolu taxoon na ca sa taxoon na ca jullit ñi génn ci xat-xat mm. waaye ba fonk tim njaboot gi mm. ndax ñoom ak ak ak ak euh, ak ñu ñu mel am na ay exemple yu am solo yoo xam ne waxtu wee xaw xat waaye kenn ku ci nekk nam la fonkee woon mm-hmm. ak nam la daan taxawoo ci ci ci sa maanaam sëy bi mm-hmm. la ci dimbali dina ci dina ci dina ci taxaw bu baax. Mhm. kon yéen moo nekkoon ki nga xam ne moo gën ci nit ñi ci waa këram. Ah. ba daan daan na kafe doon na kafe Aïcha ba ne ko man xam naa boo meree sax nan ngay def. daan ne ko boo meree da nga naan wa rabba muhammadin. Mhm. boo boo boo kontaanee da ngay wax wa rabba muhammadin. Mhm. waaye boo meree boo giñ wa rabba ibrahim ngay wax. <laughs> Aïcha daan ne ko waaw ndax munu munu munumaa bàyyi ci yow dara loolu ma sa sa sama tur yi rek. kon sallallahu alayhi wa sallam royukaay la woon. ci wàllu kër loolu lu lu lu a jàngale ndax amaana léeg-léeg dañ ko jàppee ak nooy wala jàppee ko ak ñàkk fayda fekk diine vraiment euh, rafet jikko la ci sunna si yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la bokk kon xam naa ne moom lañ mën a jàngee bëri na waaye waaye nag moom wana kullu di ilmin wa saayin wa rutbatin alil mustafa fi xulqi lxaaid lolumi maanaam képp ko ma xam-xam ak képp ku am daraja mën a am rek lottu nga ci wax jikko yonent bi sallallahu taala alayhi wa waaye nag moom lu lu loo xam ne kenn mënu mënu koo jël dem da fexe ba am ci dara rek waaye mm-hmm. eh, loo ci am te yóbbuloo ko mm-hmm. mu doy la yóbbal àdduna ak alaxira mm-hmm. kon xam naa foofu lañuy <laughs> yëkkatee jaraay bi suñu alxadim ñaan yàlla suñu borom nangul ñi liggéey bi tam nekk liggéeyal sëriñ Tuubaa gu dëggoo dëggu te te nangu ci biir liggéey gi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salli wa sallim ala al mutammim wa kulli asim bil intihaay jërëjëf sëñ Mouhamadou Bachir ci yaatal bi mu yaatal ci beneen wala tomb yi nga xam ne mënees na ko mën a jëlee ci dundu Yonent bi salaam moo mel ne indi na bu baax ci lewet gi nga xam ne lewetoon na ko lool te loolu taxoon na ci tomb bu mujj bi nga xamee ne sax moom la daanele mooy ni yéen temps salaam meloon ci biir këram lewet gim lewet moo taxoon waa këram mën koo ñemee ba mën na di jëf yenn jëf yi ci kanamam kon dañu ne lewetam googu moo ko waaye gis nañ bu baax ne képp koo xam defal na ko ak lu bon wala lu ñaaw sax da koy fay njëkk ndax yaa ngi wax ci biir wax ne bi nga xam ne dañoo taayif ba nga xamee ne sànn nañ ko fa xeer ba sax nañ nattal ñaaj eh, jot naa nàcc bi jibril ñëwee ne ko suñ boroom daf maa digal ne boo fekkee ne neex na la mu jël ñaari xeer yi boole leen ñu al ko waaye daf na ko déedéet ne leen bàyyi ndax ëllëg yaakaar naa ci yaakaar naa ci sama boroom mu génne ci seeni euh, gaño nit ñoo xam ne dañ mujj nekk euh, ay jullit te loolu gis nga bi nga xamee ne fàttu nañ taayif la dugg lool ci waa taayif ci lislaam loolu kon di wan ne kon yërmandeem ak tamit defal ku ko defal lu bon mu defal la lu baax loolu mën nañ ko si nekk jàngate Euh, tomb bi nga xam ne moom mu jox nag mooy ni mu ci biir këram mu nekk lu am solo surtout ci jamono ji nekk nii jamono ji nekk nii bokk na ci lii waral kër yi di am problème yu si bëri mooy kilifteef ga ëpp nga xamee ne euh, ki ki ki yilif la koy doxee te loolu yu si bëri nag euh, yàlla mi yàlla jégal du diine aada rek yoo xam ne moo ñu ko fardu te ne xam ne bokk na ci réew mi nekk nii diine am na koy waaye aada aada dafa mel dem na banut fii kon nag loolu yaakaar naa ne ni nga ko waxee nii Euh, su ko nit ñi digloo bu baax te def si ay jàngat dana tax ñu gën a xam ne kilifteef daal dafa war a yem ci biti waaye ci biir kër gi nag moom nit ki dafa war a maase ba yem ak njabootam loolu mooy indi nag miineel xam xamen geeg ak tamit cofeel gi am ci diggante nit ki ak ñim yilif loolu lu am solo lu ñu war a jàngat xam naa ne ñu ngi ko waxee dafa mel ne temps bi moo ñu xaw a euh, xoj ba mënuñoo wax liñ dafa lépp liñ bëgg a wax lépp waaye ñu ngi lay santar bu baax suñ suñ Mouhamed Bachir si ku turu kuréel liggéey ku tedd gi ak ci euh, mboolem ñi nga xamee ne ñoo ñuy bokk nit ñi topp ci jotaay bu am solo bi nga xamee ñu ngi ko doon ànd ak waa MK TV ci biñ tàmbalee ci euh, jamonoy euh, gàmm gi ba léegi xam naa fekkee ne bëgg am looy tëjee sax ñu jox la nga tëj après ñu kii incha allah suñu waxoon Bachir Mm-hmm. ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa ci toolub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bërëb bu tedd bi dana ne ak ci ci ci weeru màgg bi ndax ngir dundal weer yi leen sant bu baax nag ci waxtaan yu am solo yi ñu def ngir dundal weer yi ndax daa bokkoon ci sëriñ bi salloo suñu daan wax su gàmm rek waaye dana wax weer wi lay dundal daa nii ilaa axyaayi da chahri kawnuhu li xayril wara darfan xawa kulla sudari te fi mu toll nii liggéey suñ tubaab baaxee na fenn fu ne hmm. safar baax na ci wa fii chahri wa fii wa fii kulli chahrin zaydi ribxi wa fii safar foofu baax na ci ndax mayee foofu dafay dolli ko hmm. waaye fii moom hmm. ku ci liggéey suñ tubaab <laughs> day gën a gaaw ndax mag ñi bokk na ci bis ñu naan dàkk sëriñ bi ci weer wi weer wi dañ ci dañ ci naan dàkk sëriñ tubaab oh. radiyallahu taala anhu ndax weer wi daanu daanu tëju kenn te lu ko waaye masaan laaj ci weer wi mu jox la ko ñu ngi liggéey bi mu nangu ko rawatina nag dañ koy def ci toolu ki mu ki mu ki ki mu gën a bëgg. Mhm. ki maanaam seewoon ba je ba ma jeex takk ci moom muy sallallahu taala alayhi wa sallam mhm. ma xam li may laabiré rek euh, jeexal ko mooy luñ gën a mën a bëri ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mhm. du doy ndax daanaka mooy mooy gàmmu gi gàmmu gi. muy fàttaliku yonent sallallahu alayhi wasallam la ak ñaan la ko kon xasaayid am daax yi ak xasaayid salawaat yi mm. lu mu gën a bëri rek maa ko laabire sama bopp di ko laabire mbokk julli yëpp booy dox booy dox ci mbedd bi sallallahu ala muhammad daa yomb lool waaw mm. ah, defee ma nga cee def ay junni junni balaa balaa balaa bis bee mm. xam naa loolu la ñu daanee de sant leen baax nag yéen waa MK TV ak waa kuréel liggéey gu tedd gi ñaan suñ borom tëbb leen kattan ba liggéey bi gën a barkeel ba gën a màgg kon mbokk yi niñ ko baa niñ xamee rek tey mooy jotaay yi nga xamee ne moom la ñu doon tëj mooy yi ñu amal ci seen chaîne bi bi ñu leen di woo nag ci bis bi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a tëj jotaay yëpp mooy samedi bii di ñëw loolu tombé ak le 16 octobre ci guddi jotee fii ci kër Sëñ Tuubaa gi ci jumaa ji war fi am thème boo xam ne nadu wala boo xam ne mi ngi thème bi mi ngi tudd Touba wala Touba baynal baynal maamuli wal waaqi am Touba li nga xam ne moom la fi sëñ bi nësaroon wala moom la sëñ bëggoon sax ak li nga xam ne moo ko jot am ñu war ko tën tënk na ci ñetti jawaanib moo xam jaanibul diini la wala jaanibul ijtimaai yi wala jaanibul iqtisaad yi ñu war cee ànd ak ay borom xam xam yu mag ci yoon yi ku mel ne sëñ Mbàkke Abdourahman sëñ Fallu Buso Xasan ak sëñ docteur Xaadim Bamba Diagne incha allah ñu ngi leen ci woo di sàkk bu wax seen teewaay di wax ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu